nga euh, sol lu xonq di symboliser danger. Mm. mu mel ni euh, tey ni nga ñëwee donc ak ni nga ma ko waxee dafa mel ni. Mm-hmm. danger dafa euh, xew. Mm. yaakaar naa ni bu ñu tollee fii sëñ Mara génn. Mm-hmm. musuma la dégg quand nga wax ci waxu danger. Mm-hmm. ne fi mu nekk nii réew mi dafa nekk ci danger. wala mais danger bi te ngi ñuy jëm ci procès bu am importance. bu am enjeu. muy le 17 avril nga ne dafa am danger. sëñ Mara waaw jërëjëf yaaram maa ngi lay fay nuyoo di am mbégte bu baax a baax. di wax ne euh, am na solo xam nga nag Sénégal dafa xaw a naqaree waxe trop sénégalais tamit dafa nekk nit koo xam ne moom bu sañoon ndeysaan lu lu xaw xawma nuñ koy waxee lu neex rek lay dégg ci noppi bi wala sénégalais bu sañoon day jàpp ne waaye dañoo bëgg yaakaar naa ne ku leen di fen hmm. maanaam la 17 chiffre 7 la maa ngi ciy ñëwaat lu xam nga la di 17 boo jëlee 1 bi ah bëgg cee teg 7 bi da ngay am 8 ñi jàngul nañ noppi te boo xamul li sëriñ bi di wax da ngay noppi. chiffre 7 ba dafa dafa baaxul wala chiffre 7 dafa nekk danger wala euh, parce que Ousmane. xam nga xam nga woo yëpp sëñ Mara. waaw tombé wul ak le bii dafa tombé ak le 17. waaw moo tax ma ne leen le 17 chiffre 7 la 1 bi bokku ci. ndax même bu ñu lay seetal sax euh, kilifa yi yëngu ci wàllum sëy waxuma nag xale yi nga xam ne dañuy doog a dugg ci ñaan di bëgg ku leen xam waxuma ñooñu wala ñi nga xam ne amuñu xam-xam euh, ñaare sëy bu tombee ci un sax dañ naan la baaxul. yu ci ëpp. chiffre bi xaaral ma wax la <laughs> dama la dafa am tuuti lu may leeral dama bëgg dama bëgg ngeen xam ne xam rek a wóor. fi mu ne la 17 boo ko jëloon teg un bi da nga koy teg fële jël chiffre 7 bi teg ko. te fi mu ne même booy seetal nit wala nit ki mbiram taxawaay ci chiffre boobu ñaari dañ naan fu mu nekk dafay yàgg. ba pare même bu dee ci nit dabul li ma la wax diw nangam set diw nangam set force balaa dee day bejjaaw est-ce que dégg fi may waxee. Hmm. maanaam dafa nekk chiffre boo xam ne dafa diis te day téye nit pour nit taxaw si sax ñu liggéey la yombul. moo tax Ousmane Sonko ma ne la set bi xam nga lu may ñaan yàlla. ñu fomm ko bañ cee jël benn dogal man loolu laay ñaan. mooy li ngay ñaan man ñu fomm ko te bañ cee jël benn dogal man loolu laay ñaan. mais sëñ Mara nag franchement xam nga yéen nag da ngeen a nekk gis nga maa ngi lancé bu baax nag euh, ñi ñu naan patriote yi ak yenn yi ci ci ci nit ñi gis nga usmaan Sonko bu dee Ousmane Sonko kese amul problème mën naa ne waaye bàyyi leen. am na nit ñoo xam ne ñi ngi mel ni kuy liggéeyal Sonko waaye dañ koy yàqal xam nga lu tax ma ne la dañ koy yàqal yow da gis nit koo xam ne léeg-léeg day mel ni sax moom moom réew mi day taxaw di décider ak di dugal ak di génne te bu yàggee mën nañoo dugal nit ñi ci pax moo xam ne balaa ngeen a génn day jafe baa xam nga benn mbir man senegale yi ñaare li ci ëpp li ma leen di wax du leen arrangé waaye mooy dëgg. mais sëñ Mara te bu jàllee non. sëñ Mara nga baal ma mais yow tamit dañu dañu tàmm wax dëgg yàlla di euh, gis ci yow di dégg ci yow loo xamante ni quand même dafay. Mhm. Euh, favorable donc au leader. Euh, mhm. du Pastef muy Ousmane Sonko. Mhm. le président Ousmane Sonko. tey ñu ñëwee bu ñu déggee ci yow leneen. quand même daf ñuy xaw a jaaxal parce que itam. mel nga ci réew mi noo xamante ne bi ba ñu lay woowee le marabout de Ousmane Sonko. ci engagement ak lépp. tey bu ñu ñëwee nga ne ñu danger ba pare nañu fomb ko moo gën. ba pare nañu le bi la 17 bi dama dama ne la la 17 bi. ku ci jël décision sax te seetlu nga baal ma même juge yi waaye cheikh bi man man yaaram jomb naa fu may kàcce waay mais nag li ma leen di wax dama ne leen nit ki waroo xool lu la arrangé képp ba doo wax dëgg dama ne la man Ousmane Sonko fi ne fegu ak jug mi ngi doog a jot waaye le 17 bi chiffre 7 la du chiffre du du chiffre 8 de 1 bi bokku ci danga koy teg fële. ndax dama ne la li gën ci seet boo ko doon seetlu ba tombeek un da naan li may seet lu baaxul te lu baaxul kenn du ci tàmbalee chiffre sept bi ngay jël moo ëpp doole fi mu ne booy adat turu nit ki boo koy seetal ba xam ban bureau fi mu taxaw boo da ngay xool araf bi fi ëpp doole nga peese ko la muy peese nga talzam ko boo ko jaraboo lam la jox fee da nga koy xool la muy peese nga man koo dugal ca nga koy wàcc ba ci mu nujoom nga xam kii ci burooj ban la bokk mbiram naari yu la wala maa yu wala hawaa yu wala turaabi lii mooy xam-xam ku xamut da noppi chiffre sept lay doon buñ la gëlëmalee nag da nga naan la dix-sept la da gis koo xam ne day toog ci xalaatu boppam rek ah sëñ Mara tey juum nga nga xam ne même sax dañuy mel ni ku ànd ak Ousmane Sonko te ñoo koy yàqal. te gis nga nañ moytu nag nit ku bëgg nit wala nit koo xam ne Ousmane Sonko dafa taxaw daat ne sénégalais yi yéen a tax ma ñàkk sama lépp. baa xam nga ne man Ousmane sonkoo moo tax ma ñàkk sama lépp hmm? waaw Ousmane Sonko bu ma ko sañoon ci àdduna man naa ne moo tax ma ñàkk sama àdduna lu bari te xam nga lu tax ma def ko gëm réew mi ak jàpp ne dañ koy jaay doole dañ koy xoqotal jàpp ne usmaan Sonko dañ koy mettital ñi ngi teg ci deram bi loo xam ne Ousmane Sonko àttanu ko te Ousmane Sonko képp ku am xolu biir mande képp kuy waxal yàlla képp ku xam fa mu jëm xam nga ne Ousmane Sonko mi ngi laaj mi ngi doog laaj ñi leen di gëmloo naan leen lépp baax na dañ leen di nax liggéey bi mi ngi soog a door. mais sëñ Mara dañuy tàmm man du ma euh, fenn cheikh bi sëñ Mara liggéey bi mu ngi soog a door nañu jóg nañu jóg nañu jóg te bu ñu jógul billaahi wal kitaab bi di ngeen ne sëñ Mara waxoon na ma ko bis bu ma gis nag baaxul lu ma man ci mu fomm wala ñu ban cee jël benn dogal danaa ko def man loolooy sama loolooy sama ndam man. ndax man lépp lu may xañ wala lu may daw man man bu doon Sénégal wala leneen sëñ bi damay dem toog feneen mais dama ne la le set bi chiffre 7 la ñiy jëpp xilmun ñi ñi liggéey ñi liggéey xam nañ li may wax. léegi ma laaj la sëñ Mara yow ñun dañ fay jàll. bàyyi leen di gëlëmal sénégalais yi. dañ fay jàll ay procès yu bari. Mhm. dañ fi jàll depuis donc mu commencé bu yàgg ah. waaw jàll fi ay procès yu bari yoo xamante ne bi Ousmane Sonko. wuy ji na mhm. ay bakkan sax faatu ci mhm. Ousmane Sonko wuy ji na fii donc ñu amande ko deux sant millions yàgg na mhm. fee wuy ji mosoo taxaw wax ñu ne ñu quand li ma gis baaxul wala danger dafa am donc lan moo xew damaa gis ñu bëgg a pëtëxal Ousmane Sonko te duma ko nangu te Ousmane Sonko ci boppam ñi ngi koy waxuma la fexe ngir gàllankoor ay mbiram dañ koo bëgg a téye bañ mu dem ci élection yi te dama bëgg a gëmloo képp kuy sénégalais xam nga boo nee patriote yi kese yow dafa mel ni sax sa gis bokkul Ousmane Sonko nekkul ay patriote te nañu bàyyi wax naa la ko mel ni koo xam ne usmaan sonkoo dana la yow koo gis neexu la kanamam wala nga bëgg koo dugg tax nga bëgg a pëtëxlu gis nga noonu jërul xeeb te jërul wutal sa bopp Ousmane sonkoo bu jàppale wuñ Ousmane Sonko man sama yoon nekkul ci moom bu falu woon sax yàlla buñ gisante ci barke alxuraan kon man bëgguma loolu man réew mee ma ñor. mais bu fekkee procès dafa taxaw nañu fexe ba ñu nekk ci procès bi di waxante dëgg waaye xam nga fu ñuy mujj buñ bawul yii dem ba ñoom ñen naan patriotes yi seen biir di xëccoo di xeex te jaru ko même nit waaw parce que Ousmane Sonko ñu bari ñi ngi téye micro di wax dañ koy yàqal defaraluñ ko hmm? barke Seydina Mohamed wallahi alazim wallahi yiim ñu bari ñi ngi jël micro di wax te dañuy yàqal non non yëf yi lu yàlla yaatal non lu yàlla lu yàlla yaatal ni ma ñëwee tey baaxul puisque xam nga lu tax yéen ñëpp dañ ñun ñëpp dañoo am masalan suñu leader muy Ousmane Sonko dama leen a yàgg wax lépp li fi jaar ci ay projet bu ñëw mën a leen danañ ci génn ci jàmm wax leen ay sarax di fanaan di jàmm yàlla di ko ko defal te yàlla tax mais bu ma demee ba gis ñu nar koo pexeel danaa jóg nag di ñaan yàlla suñ borom pexe mii ñu koy jubale yàlla bu mu sotti man loolu laay ñaan yàlla man loolu rek laa bëgg. mais sëñ bi am na ay pexe mi bañ a sotti. am ay sëriñ yu taxaw ne lépp ok am na ay sëriñ yu taxaw ne. moom yow sax ñu diingat la ci ci ci ci ci ni nga waxee donc euh, chiffre 17 boobu donc ñu ñu ñu ne ni nga ko waxee baaxul. ñooñu lu ñu gis ak li nga. demal nga topp ñu di wax ñu ci ëpp. ñoom ñoom jëmmi sëñ maaraa xam nga sëñ maaraa ni ko yàlla def ci Sénégal nga xam ne ñëpp ko bëgg yow nga ne influenceur nga Sonko ngay jàppale yow woowoo sëñ Mara yow nga toog am fit mënta paase sëñ Mara mi liggéey mbiram ba xam siifur bi lim ko jox ak la muy peese yow nga toog naan da ngay weddi weddi dëgg la nag yàlla sax am na ñu ko gëmul am na ñu ko weddi mais loolu ku ku ku loolu ku ab sénégalais gis man ku ma gis ngay lim siifur 17. nga koy yóbbu naan chiffre huit la mel ni da ngay jël un bi mu fekk ci sept bi muy huit noonu la ñu calculer du noonu. mais parce que li nga wax arrangé wu leen. non ara moo tax puisque xam nga lan la même bu moo tax léeg-léeg nit ki même bu ngeen dee bokk li ngeen di ànd wala li ngeen di liggéey nañ waxante dëgg gis nga DJ Ousmane Sonko man waxuma la élection deux mille vingt vingt trois de de nga baal ma élection yi ci ban la. deux mille vingt quatre dama ne la même bu dul élection yooyu man Ousmane sonkoo dama koo gis ci pale bi te gis nga li ma wax nii man maa ko wax te virgule bu ci dañ palu Ousmane Sonko dama ne la buñ taxawoon tey mën a fëgg daal na juróomi candidature yi wala juróom-ñaar yi yay dem ma mën a waat ci ne diw sànga ma koy jël man yàlla moo ma may loolu waaye bu ma gisee nag ki nga xam ne ay ndaw yu bari dañuy sonn ci moom ak jug di ko defal ak di ko défendre ay xale yu ndaw bëgga toog bëgg yàq mbir mi duma ko nangu surtout ñu naan ay am na ci ñoo xam ne ñu ngi naan ay sëriñ lan ah? am na ñoo xam ne ñu ngi ba pare li ci gën a doy waar mooy ñooñu di wax ñëpp dañuy fexe ba photo woog Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko dem ci kili kër kër kilifa diine nga fexe ba pëtëxloo moom man sa waay boo bëggee dégg dëgg Ousmane Sonko man naa ne dama cee perte waaye awma ci dara te it ci dara. réew mi moo ma ñor te lu dul réew mi aw ma ci defar aw ma ci yàq mais nit ñi nañ bàyyi naafiq alors yow seetkat nga. Mhm. heure boo gisee mbir mu leerul da ngay génne ay sarax heure boo gisee mbir moo xamante ne bi dafa jaxasoo wala mbir moo xamante ne bi baaxul. Mhm. yaay nit sax bu ñu bëggantee ñëw ci yow quand même ne dañoo bëgg a sëy. Mhm. bu sëy bi baaxul. di nga ne leen baaxul mais bu fekkee laaj na ay sarax yu ko war a tojtal di nga ko génne procès bii nga ne baaxul am na ay sarax wala amul ay sarax. procès bi baaxul xam nga bu may ñaan lu ma ciy ñaan man sarax yi ma jot a xool ba gis ko damay ñaan yàlla benn siis bañ cee jël benn décision ba ca ngoon nga mën na la di jëkkaay waaye luñ ci jël dama ne la gënul baaxul dama ne la yàlla nañ ko aj wala yàlla nañ ko dàq wala yàlla nañ ko wala yàlla nañ ko man loolu laa wax te loolooy looloo loolooy dëgg ji léegi nag bu fekkente ne yéen dal na seen xel nañ bàyyi buñ demee juge bi décider waaye man lu ma man ci mu mu mu bañ a décider danaa ko def man boog. loo mën ci ñaan ma ñaan yàlla. ak sarax ak sarax danaa ko def te soxluma ma ci dërëmu kenn te bu ma ci kenn jox dara man li may def yàllaa tax bëgguma ak ñi nga xam ne dañuy toog photo woog usmaan Sonko jàpp ka ne Ousmane Sonko di def te Sonko sax wallaahi alxasim yëgu leen xamu leen sax. te nañ bàyyi kilifa diina yi nga xam ne it seen yoon nekku ci ñu leen ciy dugal. Ousmane Sonko kenn bañu ko waaye ñu ngi koy bëgg a wutal ay noon nag waa Europe yi ak waa senegal kenn bañul Ousmane Sonko waaye ñu koy bëgg a wutal ay noon te ñi koy def mooy ñi jàpp ne ñoom kese ñoom ñooy liggéeyal Sonko te alors que liggéeyaluñ ko dañ koy yàqal nañ ba loolu loolu baaxut Sonko mbiram ëpp na lii yaatal leen ko moo gën nit ñi di ko xatal dañ koy dañ nit ñi dañuy jàppalante rek ngir réew mee tax am déet. waaye ku bokkeen kenn ku ne sa bopp la ak sa bopp da ngay toog nga ne man ak sama njaboot tedd na. mais da nga wax lu am solo léegi nga ne patriote yi ñu ngi soog am liggéey. liggéey surtout. liggéey bi waaw kay jërëjëf ci laaj bi am solo yi xam nga luy liggéey bi. Mhm. Ousmane Sonko wëratul a wéet première wëratul wéet Ousmane Sonko waruñu ko xam nga bëñ bën naan roog seen. Mhm. roog seen. Mhm. fa lañ ko war a lokk man Ousmane Sonko ku procès dama ne la sama bakkan bii barke yonenti yàlla Muhammad ak weeru koor gii bu fekkente ne bu ma dee woon Ousmane Sonko falu tey tey barke yonenti yàlla Muhammad ak Serigne Saliou tey ma dee. tey jii yàlla na yàlla jël sama bakkan ci alxuraan alxuraanam mag ñu baax ni man bu doon sama bakkan bii képp moo dox ci digganteeg pale bi yàlla na ma yàlla faat. man li may jël ak li ma mën ak li ma ñeme amul kenn ku ko ñeme nit ñi dañuy wax te man damay jëf benn bis laa masa toog nelawuma mën naa ne am na ku jege woon sonkoo lool kuñ naan Mollah Morgun maa ngi wax lu doy waar damaa toog benn samedi ñu woo ma man nit ñi bu njëgee ci sonkoo dara rek dañ may woo biñ ma woowee na ma kar am na lu xew ma ne leen lu xew ñu ne ma Mollah Morgun de yor na vidéo yi Sonko wallahi alxasim wa rabbul kahbatu musarraf damaa fekk julli gee fi ma toog falaa toog falaa toog ba fajar ndax booba ñu ci bari daanañ ko déglu jàpp na li muy wax ci ay sources lañ koy teg moom it nee na am na fuñ ko jaar ba nax ko ba wan ko loo xam ne jaawale na dama lay wax rek ci gëm nit ba deel di dégg ci moom lu baax kese ba bu la waxee lu la arrangé wul nga bëgg a taxaw défensivement ne kii nàngam ba mu ko waxee maa ngi jaaxle man booba daf maa jàngal nag lu bari moom moomu leçon la li tax may wax loolu daf maa